ay jafe-jafe yu metti la ASP yi di dund jamono ji lu ñu leen diggoon dara gisuñu ci tax na ñu doon amal doxu ñaxtu talaata gi fii ci Dakar ak yenn région yi Alxasan Thiam di ASP mi ngi woon ci ndaje mi. muy aaj ñu ci ay galère yu métti ay stress métti ay situation yu tar tar tar yoo xam nit mënu wax sax nit ñi seen jabar dem ñi seen sëy tas na. nii seen location metti na mu ngi en danger dañ koy muñ ba suñu dënnu nar a toj moo tax ñu génnaat pour manifester waat pour maanaam yëglaat yëglaat état bi lu ñuy dund ndax ndax l' état l' yi nous a menti. parce que premier promo 2013 ñoom dañoo nëbboon dañoo nëbboon a la ñu leen di fay kenn wax ko fa woon somme bi ASP di am kenn wax ko fa woon. xanaa kay dañ di ngay am temps boo leen demee fi ngeen liggéey ñu teg leen ci temps loolu ñu gisuñu ko ak yu yu yu yi nga xam ñaan la code travail di ngeen ci bokk yooyu ñun gisuñu IPRES dañ leen verser IPRES yo gisuñu ko yu bëri bëri bëri bëri gisuñu ci dara même IPM bi sax IPM bi pour nga jot pour faju si di ngay jot di ngay daw comme ça morom pour jot pour faju ci IPM mu ni gi nax ndax nekk nañu ci liggéeyu ASP ci lu mat juróom-ñeenti at te ba léegi dugguñu ci fonction publique bi te seeni salaire soppeekuwul ci boobe jamono yeneen agent ñu ngi fayeeku bu baax ASP yu bëri seen njaboot ñoo ngi dee à cause de santé bu manqué moo tax man na ko tey ASP yu bëri seen njaboot ñoo ngi dee à cause de santé ASP bu yàlla dimbalu dëgg dëgg dëgg da ngay dox di wax da ngay dof condition ñoom métti baaxul quoi condition Nous fait 100 100 000 avons fait 3 troisième mois après 9 ans nous avons fait n'y 000. que égalité pour moi, moi moi volontariat forêt volontariat eaux de forêt Nous ngi jox Nous bi tàll AFP même ñuy ñuy c'est égal exemple da ngay gis paye koor bu jot ñii dañuy jot té ñii dañuy jot ñii dañuy jot prix ñii dañuy jot ñii dañuy jot yooyu day yooyu day indi ay état dafa jël suñu 11 ans am ñoo 11 ans la jël si bo défé armée 2 ans après Macky Sall daal di woote ne ñëwal ñëw leen ñëw leen ñu jëlaat leen ngeen ñëw mu wax leen lu leen wax après 9 ans 9 ans jot ak ces 2 ans ñu defar armée 11 ans ah kenn waxul lu leer kenn wax leer jaadu yow comme que da ngaa sëgal sëriñ da ngaa nekk sur le drapeau mu liggéey sëriñ loolu lañ daan lay dugal fonction publique parce que ñoom ñooñu ko waxoon ñoom ñooñu ko waxoon moo tax ma ne ci trois ans moo tax ma ne l'état nous a wante de seen liggéey metti na lool te bëri na ay risques. ma wax man jàpp naa ko xam ne saaku saaku man en personne saak ki laa yor saaku saaku saaku munition la yor saaku munition. saak bu fekkee dara ay munitions la yor ASP ñoom sa saa yoo xëy yaa ngi gis sa bakkan tey la ko ci kaw ci kaw sa sa suuf drapeau Sénégal pour Sénégal taxaw. li ngay sori ñooñu ñooñu dañoo war a dafa dafa ñaaw sax loolu. gis nga man mi en personne man naroon nañu ma taal taal jël essence taal ma ndax la ndax dama jàppoon ay délinquant ay agresseurs yóbbu leen police parcelle mais ba ñu ba leen waa police bàyyee ñoom ñu yor seen moto bi ma wër yor seen essence di ma wër ay 4 Hmm. bu ñëwee gaare foofu ma gis mu yor butéel butéel essence la man ma jël butéel tur ko ci suuf après kay noonu la nañ bàyyi mu seet jël seen mutuelle dem. kon métier bi encore bëri na ay risques yooyu. kooku ne ma kooku ne waaw kooku ne ma am ku toog sama dama ñii borom mutuelle lii seen ay defkat lañ. seen direction daal di ñaawlu seen doxu ñaxtu gi moom Alxasan Thiam mu gis ne ñooñe seen bopp rek. lañu fi nekkal. direction ñaanuñ ko ci kaw zahir nii mais baatin ci baatin ci biir biir xam nañ lii dëgg la xam nañ parce que ñoom bu ñu ko doon fay ñoom bu ñu sigg seen kanam njaboot direction li ci gën a métti mooy yow da ngay ñëw buy métti ba ASP di métti métti dëggantaan yow nga nekk ci nga gis ay nga gis ñoo xam ne ñu bees tax ci ASP ñu ñu def fonction publique ñu dugaleen fonction publique yow nga xam ne muy métti yow yaa ngi ko woon

mais léegi mu respecté engagement am ci ASP. Hmm. mu joxan considéré ñu. comme mel comme nan. comme na comme yu mel nan comme yu mel nan. Hmm. mais maanaam mu yëg ñoom nit boo ko yëgee di di xam mu yëg ñoom considéré ñu maanaam mu wax ci ay maanaam mu wax ci corps spécial bi mu dëggal ko lu mu wax si ñun engagement privilège mu wax si ñun mu def ko mu dëggal ko waaw. d'accord bu loolu amul. Ah bu loolu amul ñu wàccaat ci kaw rek wala ñu bàyyi wala ñu bàyyi kaag ba ASP kooku 你卖要东我